mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu man soxna Yacine Fall maa ngi leen di ziar di ñaan sama kàddu yi fekk leen ci jàmm di leen massawu ci jafe-jafe yi ak métit yi Sénégal di jànkonteel métit yi sénégalais di jànkonteel muy nag tey lu doy waar lu tiis Sénégal a ngi ci tiis gu metti nekk ci guddi gu ba set bi setagul te lii yëpp lu ko waral Macky mi taxaw ni fokk mu tànnal sénégalais yi kan moo leen di bu dul moom moo koy tànn loolu nag lañuy ñuy waral bëgg xam lan moo ko waral lan moo waral lii taxaw rek ni faw foo jaar lii di nga ko di nga ànd ak sénégalais yi taxaw jànkonteeg ñoom foqar ñi seen loxo tànnal leen président maa ngi toog seen kaw lii daal mooy li nga xam ne lii mooy suñu tiis mooy suñu njaaxle moom la Sénégalais yëpp taxaw ni lii na fi na dakk Macky Sall lii na dakk waaw rey nañ fi nit yu bare jël nañ fi seeni bakkan enquete amul torturé nañ fi xale yi sénégalais yu bare enquête amul disparition yi jàll nañ fi amul nga taxaw nag te da ngay tëj ay nit par milliers tëj ay nit ci kaso tëj nga sëriñu daara tëj nga jigéen ame jaa ngi nii nga def nga nga nga tëj ko rek tere ko mu gis ba bëccëg tëj nga artist tëj nga député tëj nga ambulant tëj nga activiste tëj nga journaliste ba tëj ji journaliste bu jigéen bu ëmb ba nekk ci weeram tëj nga ay maire bu tëj may mën a jéey mi nga xam ne dafa am ak pathologie yu bare am lupus nga def ko bàyyi ko ba mu loof ba leneen dolli ci nga soo ko bàyyi mu dem tëj nga màggat kenn waxul ba seen jumaar fay facebook rek fadilu kayta waxul lu dul ah maa ngi yaakaar maa ngi ñaan de sama mag kenn faagagu ko nga tëj dégg nga anibal jim, tëj ko ndax ko par ak bu muy liggéey te di ko liggéey sénégal yëpp Macky Sall loo bëgg tëjë tëjë tëjë tëj ba léegi nag ñi nga xam ne dañuy xiifal seen bopp nekk sawetage sénégalais tudd ko sawetaas mooy koo xam ne kii dañ lay jéem a sauver nga dëkk ci diggante dund ak nga nga téye leen ci kaso ñi leen dangeen di xiif na ngeen deemee duma leen tijji duma leen bàyyi ngeen nag Macky Sall loo bëgg makki Sall lan nga bëgg ci senegal gi kenn xamatul lii lan lay nirool lan lay nirool ñun nag dañ ko muñ ba mënatuñ ko ñun foog ñu yëkkatu suñu kàddu wax ndax nak taxaw dafa jot te nga xamni ni Macky Sall Sénégalais yi mëno leen japp daan leen noot leen ba nangu réew mi ci seen loxo mëno nangu réew mi ci Sénégalais yi li nit ñi di wax ñi ngi koy bëgg gëm ni Macky Sall li mu naan nii wii nu non du dara lu dul dafa bëgg dëkk indi dëkk bi dugal ko ci fitna créé fi kawo ndax mu ni dama indi stabilité damay tok mbaa mu dem indi fi guerre bu ko defee du dem mais loolu sénégalais yi ko nangu Macky Sall sénégalais yi kenn mënu leen noot ba nangu seen réew loolu dama bëgg nga xam ko dama bëgg nga xam ne sénégalais yi kenn du leen noot ba nangu seen réew te yow Macky Sall war nga xam ne dañ la joxoon réew moo xam ne mi jàmm lañ la ko joxe xeexal la ba nga falu nga and nga yore sa matla mer gàddu Moustapha Diass yore dojam yore xeeram bu rëy sénégalais amu leen lu ngeen fi waxul amuloo loo fi tëj nit wax ngeen ko wax ngeen gon fi gën a ñaaw tey ñu ànd ak yéen ba fal leen kuy xamoon ne 2011 li ngay mujj ak ñun kon kenn la fi teg bett nga Sénégal yi te war nga leen bett nga nu te war nga nu Macky ñu lay wax nag ni lii dafa war a dakk ndax nag doo ci mucc musiba gi ngeen bëgg indi ci réew mi ak fitna gi ngeen bëgg a yee ci Sénégal du ngeen ci mucc wala ñeneen ñi duñ ci mucc waaye yéen du ngeen ci mucc ndax du jur jàmm te ma yëkkati sama kàddu de la wax ne Macky sàll seetal sa xel bu baax a baax a baax te nga xam ni peuple sénégalais ak sénégalais yi li nga leen bëgg a teg du duñu ko nangu te du continuer bàyyil Ousmane Sonko mu ñibbi njaboot na ñibbi ci ay soxnaam ñu faj ko bàyyil Cheikh Bara Ndiaye mu ñibbi bàyyi ñeneen ñi ne grève de la ak ñi nga tëj ñi ñu ñibbi seen dëkk ñu sotti ndox mu sedd ci réew mi nga bàyyi sunu réew tey Sénégal mooy réew moo xam ne mii doomu Sénégal daf fiy gàddaay te sunu maam yee leen di daan gàddaay nekk ci dëkk ba xat fa wala mënatu fa toog ndax njabootam wala te wala xam-xamam mu gàddaay dem ci beneen dëkk sanc fa loolu la doomu Sénégal def tey dem Mali gàddaay fa tey la am Sénégal doomu Sénégal dem Amérique baa bu dem bitim réew ñu dema sama dëkk dama dañ ma fay tëg wala dañ fay rey wala dañ fay boom réfugié la état nangul ko ko def ko réfugié ndax bu ñu su ma toggee Sénégal ñu rek ma baa ñu tëj ma ñu nangul leen léegi sénégalais yi di am ay réfugiés ñu def leen ci liste réfugiés yi Macky Sall ñu la sénégalais yi jiwuñu la woon lii nga jox ñu réew mu mel nii wante nag réew mi metti na soble bi seer na dund gi seer na chômage bi bare na liggéey amul mbënd mbënd maa ngi rey nit ñi dégg nga mbëkk mi waxi noppi mais loolu yëpp loolu yëpp delloo ñu Sénégal gi la joxoon rek delloo delloonu sunu réew ni mu ñu la ko joxoon Macky Sall ndax li nga fi bëgg a samp dictature du fi dem tey du fi dem ëllëg te lépp li nga xam ne li ne droit may na ko nit may na ko sénégalais pour mu def ko sénégalais dinañ ko taxaw yow ba nga xam ne doo nangu Sénégal yàq ko ndax nag yow ci yàq Sénégal nga bëgg a def ngir rek maa fi toog wala ku ma neex moo fi toog sénégalais yi Ousmane Sonko la ñu bëgg te dinañ ko fal bëccëg ndax loolu mënuloo ci dara incha allah rabbi moom loo Sénégal doon la loo ko delloo ñu suñ dëkk ñu la ko joxoon Macky Sall